allahuma laa adurru ndax seen mbaax yéen du ngeen lor kenn seen kàddu muy sëriñ Mouhamadul Bachir mii toog Mbàkke ak délégation ak njaboot gu tedd gi nga xam ni ñoom la àndal ñëw seet si mbokkam nee na moom dafa gëm ni tey jàppul ni sëriñ Mouhamadul Bachir moo toog fii waaye sëriñ Mouhamadul Muntaqa Mbàkke mooy ki toog fii wala sax nee na romb na foofu jàpp na ni ji ki toog fii mooy maam Cheikhul Khadim moo toog toogaay bii nee na xam na ni daal la benn mag waxoon ganam ni ko tey jii daal bu rendi nit daganoon ñu def ko waaye nee na suñu borom am na lu ëpp loolu te du jeexal mukk moom borom bi te li mu yor moom yàlla boppam taxul mu yor ko borom bi subhaanahu wa taala ku doylu ci boppam la amul dara lu mu soxla amul dara lu muy bëgg ndax moom mooy suñu borom nee na li ñu war rek mooy ñu toroxlu sol mbubbum njaam taxawaat ci buntu borom bi di ko dagaan moom suñu borom nu ñu koy dagaane nee na di ko dagaan yàlla nañu yàlla defal fan yu gudd defal ko sëriñ Mouhamadul Bachir Mbakke defal ko njaboot gi yépp nag defal ko magam di xalifa bu baax ba di sëriñ Mouhamadul Murta Muntaqa Mbakke ak mbokkam mi fii ci Tiwaawan di sëriñ Babacar Si Mansour al Khalifa ak ñi ñu ko bokkal ñépp te ñu àndanoo seq këru diine yi ëttu këru diine yi ci barke sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam na sëriñ bi nee na yal na la yàlla aaral boppam nee na ci mboolem jihaadu sitt yi nga xamante ni ñoo war ñoo wër doomu aadama bi yàlla na ci fu ci nekk rek yal na la ci yàlla aaral boppam yàlla na la yàlla téyal boppam yàlla na la yàlla sàmmal boppam ndax mission daal mënatul a rëy mënatul a màgg ba ëpp mission bii nga yor Serigne Mouhamadul Bachir déedéet dina loolu mënatula a am nee na suñu boroom nag ku mu yen dina la téeñal nee na ni ko Cheikh Idrissa waxee léegi ci biir rek te maam Yuusufa Jóob suñu maam ju baax jooju wala bàyyi bu baax boobu waxoon ko Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh booba mooy ba nga xamante ni Cheikhul Khalifa Serigne Babacar Sy jiitu na ak rakkam ju baax ja Al Hadj Mouhamadul Mansour jiitu nañu si la maam Yuusufa waxoon kàddu gii muy bëgg a wax Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh Baye Abdou ñëwoon fii ci Jaksaaw Fass Jaksaaw ci tool yi ngir dekkalaat ko maam yuusufa jóob dalal ko ni ko ah abdu ni ko nekk ba ma sa baay Cheikh Al Hadj Malick di wax naan ma yuusufa toogal fii ba ku la fii fekk fekk la fi nekke yoo booba sa baay xamoon na ni yow mi yaa ma fi war a fekk waaye ñaaral suñu maam ju baax jooju Cheikh Al Hadj Abdou Sidda baax ni ko abdu yàlla boo jéemati loo tële sëriñ Mouhamadul Bachir sa mbokk sa soppe sa lépp nee na yàlla boo jéemati loo tële nee na lépp lu lay xaar te nag mënul ñàkk nag nee na lépp lu la xaaru te loolu nag mënta ñàkk te du yiw nee na loo loola lay xaaru yàlla na xaddi kooka lay xaaru yàlla na xaddi te insha allahu taala nee na suñu borom de jomb na rus na jël barke def ko ci béréb ba ñëpp xam ni def na fii barkeem mu ñëw di ko xëccaat yan si wax xëccin wu metti ni lii ma fi dugaloon muy barke bi génne naa ko fii ba mu set nee yàlla jomb na di def loolu nee na képp ku baax xolam sell te leer dina la bëgg sëriñ Mouhamadul Bachir nee na ku jub dina la bëgg nee na ku baaxit dina la sopp nee na ku jubit dina la sopp te ñaar yii nag mu wax ku ko yàlla baaxe itam dina màng wut si la fa tabaarakallaahu nee na daal bég nañu daal nee na jotaay bii moom Cherif Sidi Ahmed si mu Cheikh Al Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh nee mu ngi ciy gis sa mag ja sa soppe ba Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin macha allah ku ne xam ni nga meloon ak moom cofeel bi nga xam ni Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin amoon na ko ci sa jëmm ji di Cheikh Mouhamadul Bachir ak kóolute gi mu amoon ci yow ak fi mu la tegoon fa tabaarakallahu ak rakkam yépp nag macha allah muy xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour Serigne Pape Malick mu Cheikhul Khalifa. Cheikh Al Hadj Malick mu Cheikh Al Hadj Abdou Si Dabakh sànq rek woo na ko taataan na ci kàddu Serigne Cheikh Al malik Malick si lu mat fanweeri minute muy wax ak moom mu jëm ci sa wàll Mbàkke nee na li mu ko wax mënu koo mënu koo yëg wax fii de ndax lott na lool lépp nag lépp lu mu ko waxoon rek ci yow yàlla na doon ñaan nee na ñu ngi teg du yooyu tedd ak ziyaar ndokkeel masawu coono ci sa loxo yu tedd yi nga tegal lu ko ko ci loxo xalifa ba sëriñ Mouhamadul Muntaqa Mbàkke nee na ñu ngi feddaliwaat kóllëre gi bu baax di feddali cofeel di yeesal mbokk gi nga xamante ni yàllaa ko ràbbal boppam na mu ko neexee saa su nee na mënul ñàkk nag am na ñoo xam ni tey wallaay tey jii du ñu nelaw loolu ndokk mu jëm ca ñoom ñoom ñi nga xam ni seen xol du neex ci jotaay bii ba tey ñu war a am ñagg-ñaggu xol ba nar a am insomnie loolu ndokk na dal ca seen kaw nee na am na ñoo xam ni nag te moom ca la bokk sëriñ Mahamadul Mansour mu Cheikh Alhaji Abdou Aziz Dabakh mi ci la bokk ku fi teew xam nga ni ca nga bokk nee na tey jii de bu ñu amul ndimbalal yàlla mbégte gi dina tax ñun ñëpp dinañ biddanti ba fajar gi raw waaye incha allah yàlla dina ci jàpp yàlla nañ la yàlla fayal fa tabaarakallahu Pape Mansour sëriñ bi nee na mu ngi jéggalu ci kàddu yi nee na nee na wallaay sa teewaay bu amee ida xadara al maau batala tayammum moom amu fi woon sax kàddu fa tabaarakallahu nee na loolu rek lan doon jotal macha allah sëriñ Mouhamadul Bachir ñu ngi lay laat ah ci suñu mag suñu soppe bu baax mi mbokk bu baax bi moom mi rek sànq Xaaji yóbbante na ko ci moom pas-pasam day gën di dëgër ci saa sune ci waxtu wu ne ci jamono bu ne amul recul moom Pape Mbaye Lo ca kanam rek macha allahu waaye nag laa xar yéemewul ci ku ànd ak Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin jël sa lépp jox ko ko wax dëgg yàlla dina la téyel sa lépp kon nii nga mel yéemewul jaaxalul kenn macha allah waaw nee na ñëpp bég nañ ci yow kontaan nañ saan nee na lool loolu lay tënke kàddoom yi rek sant borom bi nag bu baax di kontaan bu baax nag léegi nag kàddu yi waaw waaw nee na xam na ni tey sa ñëw bii